mbay mbay sama baat bi ñoragul gaawal gaawal gaa baat bi dafa ñoragul. bu ko fecc di sa gaa. loolu mooy lan. jàppal si sa ndiga. <laughs> bul daw bul daw bul daw bul daw. mbay tey mbay mbay xoolal tegal sponsor yi tey programme bi dafa eh, serré. Ina Diawara. moom laa doon waaj moom laa doon waaj a wax. diaspora Ina. eh d' accord Ina Ina Diawara. Ina tegal loolu xanaa xanaa damay vérifier samay modèle. ah gaawal tamit temps bi mbay diaspora la. xam nga kii. kii nii xam nga ko. dinaa jaawara la. Gambie yàlla Gambie sax am na diaspora. wuy ma su ñuy dem si jàngu sëñ Habib bi. waaw bii la ñuy sol bii. bii la ñuy sol. wuy ma la ñuy sol bi may sol mu ngi ci prochain numéro bi bul waxagum dafal yooyu ay noppil ak wax yow booy da ngay dëgg di ko wax. bàyyi li ngay def boobu bi nag. Eh, bàyyi loolu. li ngay def yaa ngi commencé def ay affaire dóor yow mooy ay affaire bàyyi li ngay def dafa sa <laughs> ii naa a miss moom laa koy ñawal bii laa koy ñawal miss très bien yow moom koy sol diaspora bi ku ko jënd di nga xam li xew yëpp way bii wala chèque yii sama xolal baat bi xolal démb xam nga démb ñorul ah. démb boo xoolee ab Wade sax ñorul mais dama ko forcé tey macha allah wuy ma bii bii bii mën nga ko xaar ma sumi lu ne di bii mooy raqam wuy ma bii naan nga ko yow ma ne xolal naan nga ko démb moo ma faj booy li ma la wax du dañ moo ma faj wuy ma xam nga xam nga 45 ans nga waroon am. waaw léegi doublé nañ ko. 5 ans. merci jërëjëf sa <laughs> man boo duggee mbuus bi rek sama gémmiñ gi day commencé tooy. ginaar sama gémmiñ gi day commencé tooy. viande viande viande arôme 3 lions viande. viande bi la wuu poulet le la diaspora Ina Diawara bii lay bii lay bii lay toggee. ah mais Ina ko ku dem mu toggal la ceebu ceebu Gambie ah. kay. bii nag moom mooy jëm bi. kon 3 arôme arôme lions macha allah. bii moom. Baara Moussa mu tardé. yow bu ñaar si kër maa aussi. waaw yow noppil bàyyi yi ngay def liggéeyal baax na ñu ngi lay yàq de. <laughs> Euh, bi léegi da koy am ci sachet. am moutarde ci sachet bu yàggee fii fii. dégg naa dañ koy dëbb. Eh, eh, eh. dañ koy am sumbulaa mooy nokkos genre genre xam nga sumbulaa. Mm. netatu. jëm. ayca ak xasaw. te neex. te neex. dégg naa nag lu forox. lu neex lu forox si cin rek. waaw baaramuso. <laughs> baaramuso bii mooy baaramuso kii euh, poudre poulet bi. diwtiir bi nag am na dégg ku ma ko laaj. diwtiir baa ngi nii. nee na jëkkëram. lii mooy toj àdduna dëgg de. ma ma ne. allahu ma maram sekk maram ba. Ah. nee na jëkkëram lu amul tiir du ko lekk. soo sax da ci def tiir ca faas mbaaw. si kam mbaaw da ngaa war a créé fi ñuy lekk li ki lekk jee ah. ginaar kii kii fi ñuy jeex voilà kaani gaa ngi noonu. tegal benn yoon booy. gi kaani gi poobar gi. Eh, alhamdulilah rabbil alamin léegi damay woote te du ma fay. lu tax <laughs> ku lay wat. Ahmed ban Ahmed mooy jaxaw. ah jaxaw la nekk. Ah, Ahmed baax na baax sama ganaal yaa ngi commencé def lu ci rax de <laughs> yaa ngi ci commencé def lu ci rax de. Ina. waaw Ina Dia wala. waa léegi Mbaye bu ko feccee ne saga. Mbaye. kaay kaay kaay kaay eh sama yoon nekk si. grand sama yoon nekk si laa la wax ma man man man damaa solo de xam nga chaque jour fi mu nekk nii su ma nekkee sama lees rek nga nga may déconcentré sama yoon si wa weeret waxal waxal. xamuloo ko dara man waxal waxal. xamuloo ko sama yoon nekk si sëgguma laa la wax defuma dara sëgguma yow yow da ngaa dégg na maa def waaye grand démb li ma wax neexuma de affaire euh, sek xaw ma mën nga maa wax seku. ma ma wala temps yi ci kër gi. xool xool xam nga démb nee nga ma seku. xam nga xam démb ne nga ma ginaar nga wax ma sekk bëgg naa nga wax ma kanaara bëgg naa nga wax ma jinax bëgg naa nga wax ma rabu àll yëpp bëgg naa waaye bu loolu moo ko wax de dégg ginaar bu rekkuñu ko ko wax waaw moo ko wax de bëgguma ko waaw ey ey ku la wax loolu lii di ma jaman ba la ko wax ma ne yow la vendredi woon yow la yow ma ne mbay temps yaa yor xaalis bëri am na lu xew de fële waaw yow yow la mbay la mbay la ko jël mbayoo sàcc ay mbay